mooy quatorze région yu senegaal yëpp kenn ku ci nekk am na ku fa jóge li tax tamit ke fenn fu nekk am ku fa jóge dañoo am lu ñu bokk am lu ñu dundandoo am lu ñuy yëg te di ko yëgandoo ñu ni nag nañu daje xool yëg-yëg boobu ñu am naka la ñuy def ba kenn ku ci nekk la ngay yëg sa morom di ko yëg ñu fexe ba bu dee lu metti ñu àndandoo saafara ko su dee lu baax la tamit ñu àndandoo ñun ñëpp bokk lu baax loolu. kon loolu moo ñu dajale diggante démb ak tey ñuy taxawal benn alliance nationale pour le développement de la femme rurale bu ñu déggee alliance nationale pour le développement de la femme rurale nag ñëpp mën nañoo jàpp ni jigéen ña nekk ca kaw ga de ñoo jóg ni. dañuy taxawalaat geneen kuréel dëgg la depuis 2019 la ñu ko xalaatoon sémb ko far Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee ñu ne kat nañu xaar ba Sénégal dalaat amaat jàmm jàngoro jii nga xam ni fu mu yenniku ñooña dinañu jooy ñu xaar ba loolu jàll ñu doog a taxawalaat ko ci loolu ci la ñu ñëwee defaat relance bi ànd ko nag ak suñuy consultant suñuy càmmeñ ñu jàppaleñ ci liggéey bi nga xam ni fexe nañu ba génne fi suñuy statut suñuy réglement intérieur suñu bureau provisoire xalaat ni ni ñuy doxee de dañu koy tënkandoo ba kenn ku nekk gis ci sa bopp ñu ni jàpp ni dinañu ko yaatal pour def assemblée générale constitutive fii ci région de Thiès ginnaaw fi la ñu ko initié woon tey moom région yii fi teew kenn ku ci nekk ci ñoom ñooñu kat jagleel loolu dara jaale ko ca su leen neexoon wax dëgg yàlla ñu defee ji ko Ziguinchor wala ñu defee ji ko Sédhiou wala ñu defee ko Kédougou wala ñu defee ji ko Tamba wala feneen ndax kenn ku ci nekk ci ñooñu sa ndaw ñëw na. ndaw yooyu nag tànnuñu leen pour tànn rek de dañu ni région boo dem am na benn jigéen bu taxaw taxawaay boo xam ni mu ngay fédéré yeneen jigéen ñi. mu nga yëngatu ci jigéen ñi naka la ñuy amee jàmm wala naka la ñuy mënalee seen bopp ñu ngi yëngatu ci naka la ñuy saafaraa jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ak njaboot gi ñu ne nag nañu tànn ci ñoonu ay tànneef lañu ku ci nekk ca fa nga jóge ndax ku ci nekk ci ñii ñii ay réseau la ñu jiite ñii ay alliance ci boppam ñeneen ñu ci des ay fédération la ñu jiite nekk tamit ay adjoint au maire wala conseillère départementale ñooñu rek ñoo fi daje kon ñooñu femme leader lañu yoo xam ni ci seeni gox ràññeeku nañ fa manu nañ fa ñu ngay jël seen bopp jox ko askan wi di leen jàppale. kon amaana na gox bu nekk ak tawatam waaye de façon générale. Mhm. jigéenu Sénégal bu leen dajalee lan war a doon seen tawat. Mhm. yoo xam ne daar daar. war ngeen ci mhm. taxaw waaye kilifa yi fekk si leen si. xam nga tey bi ci jiitu sëñ Babacar nii jigéen ñi toogee nii kenn ku ci nekk nekk ci sa gox bu ñu nee femme rurale femme rurale naa am suuf. war naa yëngatu ci mbay war naa yëngatu ci sàmm war naa transformer war naa yëngatu ci xarala war naa yëngatu sax ci napp gafay am naka la ñuy fexee ba transformer lay jóge ci géej gi. kon loolu ay activité la yoo xam ni femmes rurales yi ñu ngi ci mais nag dañ cee am i jafe-jafe te dañ cee am ay limites ndax soo bëggee def fukk tàmbali ci benn benn ba tëla amaana. ñun dañ ni nañu dajaloo ndax kooku nekk tàmbali benn te war a dem fukk naka la ñuy àndee ak moom wuti ay jumtukaay yu matale yokk xam-xam bu xarala bi fexe ba am ay moyen ay koppar yoo xam ne dinañu mën a defee suñu yëngu-yëngu yooyu xañ ne bu ñu eggul te fukk yi amaana bu ñu demee fii ak at dinañ mën a egg ci juróom yi itam jigéen ñi kenn ku ci nekk ñafe nga ci sa wax ba nga ne ba fexe ba nekk fa adjointe maire wala conseillère municipal wala conseillère départemental nañu boole suñu doole di puusante nag ci suñu biir ngir ëllëg fa ñuy dogale di fa nase di fa noccee jigéen ñi am fa kàddu ndax soo toogee di séddale doo ñàkk waaye bu dee saa yu ñuy séddale fàtte la yow mi nekk ca àll ba amaa na bu fekkee ni toogoo fa wala toogaluñ la fa day jafe kon accès euh, instance de décision yi jigéen ñi tey loolu bokk na ci li ñu war a xeex bokk na ci li femme rural war a taxawee tamit. li nga xam ni itam état di Sénégal daf koy joxe wala gouvernement di Sénégal da koy joxe te ñëpp gis ci teg ci bët bu ñu financement dañ naan ah financement yi ay milliards dem na ci jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu di ko dégg tamit nag te xeebuñu nag li ñu ciy am waaye dañoo bëgg mu gën a dolliku te tamit jaar fi mu war a jaar ndax tey boo joxee Fatou Binetou Sall financement. mu yóbbu Saint-Louis Fat Bintou Sall bu yoree mbootaayu fukki nitam fekk téeméeri nit a nga ca gannaaw soxla ca financement boobu amaana Fat mant Fat Bintou bu ko bu yaatalul ba téeméer yooyu man kee jot mu yemale ko ci fukkam dañ naan financement de dem na Saint-Louis jox nañ ko diw waaye diw jooju ñu ko jox day takk sax après moom. kon ñu ni nag bu ñu defee suñu alliance bi lépp lu ñu joxe pour femme rurale dina gën a yaatu ci kenn ku nekk di nga ci jot li nga war a jot gouvernement di Sénégal bi nga xam ne dafa am yéene ak mébétu dimbali jigéen ñi dimbali ndaw ñi tey jii suñu xale jigéen ñii foog ñu jàppale leen uuf leen tette leen fexe ba fi violence yi ñuy dund mu jeex bëggatuñu benn jeune fii wala sax bay boo sax muy leneen mu bañ muy dundati violence te loolu wutal nañ ko sax commission boppam am ñuñ ko dénk ñu war cee xeex kon ñun tey Babacar li ñu nas fii ci ñaari fan yii suñu yàlla suñu borom dimbalee ca Sénégal dégguñu muy borom xam-xam muy borom mën-mën muy borom am-am ñu déglu ca jàppale ñu bu ñu demee diir bu néew dinañ gis ni coppite dina am ci jigéeni Sénégal yi nga xam ne ñoo jóge ca àll ba. nu ngeen di xam nga jigéenu réew réew ñun ñëpp mën nañoo wax ni sax communalisation bi yóbbaale nañu ba tax gaw amatul àll amatul ñun ñëpp ay ay ay commune lañu communauté rurale lañ nekkoon man fa laa doon jógee tey ma nekk adjointe au maire commune bu Notto Diobass jeex na léegi nag tey femme rurale boobu dañ ni fem rurale autrement ah, autrement boobu nag mooy indi góor ñi ñëw jàpp ci ba autrement bi mën a am mooy indi jigéen ja nekk ca taax ya nga xam ni su dee transformé dugub ja muy transformé waa kaw gee ko koy indi mm-hmm. su dee def fruits et légumes tomate jaak mango jaak jigéen ñee ko ko yóbbul ñi ci àll bi fa lañ koy produire xam nga femme rurale lan la dañoo ëppale suuf si nga xam ne moom la ñuy jariñoo mm-hmm. mais boo demee tey Kër Massar wala pikin dañuy def mbayum taabal micro jardinage mm-hmm. kon kooku la jigéen nga ne ca àll ba di def mu ngi koy bëgg a def mais amul espace ba jigéen ja am nekk ca àll ba am mm-hmm. mais mais maanaam ci statut ak kayit bi mhm. par exemple Thiès yi. waaw xam ne fii a mhm. bokk ci kuréel gi. day bokk kuréel gi. day bokk kuréel gi femme ba nekk biir Dakar yor biroom di liggéey nga xam ne su wàccee oto ma ko yóbbu climatisé mu dugg biir këram climatisé amaana bu génnaatee day liggéey femme boobu sax bu bëggee bokk day ñëw bokk xoo réserver lañ ko naka la ciy bokkee. kon ñun bàyyiwuñu kenn femme yëpp bàyyiwuñu kenn waaye nag comme femme rurale yi ñoo gën a métti le ñooy yuuxu dañ ne nag nañ njëkkee foofu dem saafara ji loolu ba pare ñu mën a yemandoo ak femme yëpp. amaana ne mouvement bi moom du politique waaye dañ naan lépp politique la si àdduna ñu ngi waaj tànn njiitu réew mi ndax da ngeen xalaat candidat yi nga xam ne peut-être fi leen ngoon daal leen xam ngeen war waxtaan ak ñoom ci seen programme yoo xam ne ban pàcc lañ jox jigéenu uh, kaw ñu ngi koy xaar bu baax a baax. ndax association xaw ma euh, bi bi apolitique la ñun ñu nekk ci biir nag ku nekk xañ na di nga yëngatu ci politique ku nekk am nga fooy féete waaye ñun lii ñuy xeex buñ ne Omar Sarr mii suba candidat la wala war naa doon dara ci réew meet ñun dinañ seete Omar Sarr ni ko luy mooy suñu bëgg-bëgg te bu ñu sañoon nag bu ngeen bu leen yàlla mayee ngeen yor ngeen jàppale ñu lii ñu mën ko réaliser buñ ne Cheikh Mbodj mais candidat la dañuy dem ci Cheikh Mbodj ni ko lii la ñu bëgg def lii mooy suñu programme ndax suñu document la ñu yor mu tëgg nañ ko fii bàyyiwuñu dara. waaye parewu leen pour joxe ndigal vote pour benn candidat. déedéet loolu moom pareeguñ ci déedéet ñu ngi wootee suñu assemblée générale le 3 ci kattanu yàlla 3 février lañ koy def fii ci Thiès. dinañu xool nag comme waa Thiès la ko région yëpp jaglee laatal itam te ñun am nañu suñu bureau régional dinañ préciser fan lañ koy defee. ci dëkk yi la jour boobu lay ngeen bari ay gan. ah waaw ñun de ñun ñëpp lañ ciy woo nag képp ku ci mën dara daal femme rurale yaa ngi. Euh, moi je m'appelle euh, Adjaratou Mame Diaw Cissé plus connue sous le nom de Adja Euh, je suis présidente euh, d'une alliance de euh, dénommée Alliance pour le développement de Daroumsi. Je suis de la région de luga et je fais partie de la grande alliance dénommée def Alliance pour le développement de la femme rurale, qui a été créée depuis 2009, mais 2019, mais qui avait cessé ses activités euh, à cause de la maladie du Covid-19. C'est ce qui avait fait que ses activités étaient un peu au ralenti. Maintenant que les choses sont redevenues à la normale, on a voulu essayer de relancer un tout petit peu. Cette journée a été consacrée aux préparatifs de la cérémonie de lancement du, de l'Alliance qui est prévue euh, le 3 février 2024 ici à Thiès. Nous étions là donc réunis pendant deux jours pour discuter des modalités du statut et de tout ce qui pourrait euh, corroborer avec nous pour que cette euh, alliance puisse aller de l'avant. Depuis hier vendredi, on a été là, on a parlé du statut, on a parlé euh, des commissions pour, pour cette journée d'aujourd'hui. Les commissions sont établies, donc je crois qu'on est presque au terme des préparatifs. Ce qui nous reste à faire, c'est la journée de lancement qui est prévue le 3 février 2024. Et du coup, parlez-nous un de la feuille de route. Mhm. Ah que comme vous le savez, euh, depuis que le Sénégal existe, il y a toujours eu des alliances, des unions de femmes pour l'autonomisation des femmes, pour que la femme puisse accéder aux instances de décision et autres. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui restent. C'est pour cela que cette alliance a été créée pour faire de la femme euh, le leadership féminin et, pour promouvoir euh, le leadership féminin et plaider les causes féminines. C'est pour cela qu'on a dit aujourd'hui, on veut la femme rurale, mais autrement. C'est le autrement qui définit tout. C'est-à-dire que nous ne voulons plus nous arrêter là où nous étions. Nous voulons aller de l'avant. Il y aura de l'innovation. Quels sont les Bon, il y a beaucoup d'obstacles, parce que quand la femme n'est pas aux instances de décision, vous voyez ce que ça fait C'est pour cette raison-là, dans les ministères ou bien dans les politiques publiques, on prône toujours, on nous demande de faire des structures ou y a les cellules genre pour que la cause féminine soit plaidée, pour que les femmes puissent porter le combat de leurs voisines. C'est dans cette optique la Oui, l'accès au financement, l'accès à la terre, l'accès à tout au financement et euh, aux aides. C'est-à-dire que l'aide n'arrive pas aux, aux femmes. L'aide qui est destinée aux femmes n'arrive pas comme cela se doit aux femmes. Donc nous, nous nous battons pour que euh, ce qui doit nous revenir nous revient de droit. Parce que aussi nous sommes des femmes, nous, nous, nous ferons partie, nous, euh, sommes partie du Sénégal et que nous avons notre euh, pierre euh, à l'édification. Donc ce que nous devons avoir, il faut que nous nous battions pour l'avoir. Parce que dans cette ville tout s'arrache. L'alliance est euh, politique, mais vous êtes appelé à cohabiter avec l'État, <laughs> vers la présidentielle, Oui. Euh, si euh, est-ce que vous êtes prêt à, à euh, euh, euh, Donc l'alliance est apolitique. Mais nous sommes des femmes qui viennent de différents horizons. Chacun est à son parti. Peut-être chacun milite dans un parti. Parce que je ne dirais pas qu'il n'y a pas des femmes qui ne sont pas dans des partis. Il y a des femmes qui sont des responsables de partis politiques ici. La campagne va bientôt commencer. Nous sommes là, nous sommes des demandeurs. Nous sommes dans le développement. Et qui dit développement di fonds, dit aide, di soutien. Nous sommes dans ça. Nous portons notre mai à toute personne qui veut nous aider, qui veut nous donner quelque chose pour que nous puissions dérouler nos activités comme cela se doit. Nous n'allons pas rester là dans notre petit coin et faire ce que nu faisons. Nous allons demander qui veut nous aider pour accéder à ce que nous, voulons euh, pour, dans de nos objectifs. le candidat Non, pour le moment non. Pour le moment, nous sommes dans ce que nous sommes. Euh. On verra ce que demain sera fait. Parce que pour le moment, nous Donc, sommes apolitiques. Non, on ne sait pas, pas parce que nous, nous voulons, nous demandons, rec. on verra ce qui, vont venir vers nous, parce que c'est comme ça aussi